te internaute seen acti TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan si ak am am mbégte ak contentement si ànd bi ngeen ànd si suñu programme fii si seen acti TV tey nag l'actualité oblige su ma nee l'actualité oblige ñëpp gis nañ lu fi xew démb ak tey maanaam libération bi ki nga xamante ne moo di Khalifa Ababacar Sall ah ñu gis ne bu mu jógee fi nga xamante ne moo di Rebeuss dafa jaar fi nga xamante ne moo di Masalikul Jinaan ah bu mu fa jógee def fi nga xamante ne moo di Grand Yoff si fiefam foofu tamit dëkkuwaayam la ñu teetu ko teetu bu am doole mu defaat directement fi nga xamante ne moo di Parcelles Assainies plus précisément à l'unité 20 des Parcelles Assainies fi nga xamante ne foofu la we juróom bu jigéen dëkk Elmo duma def lu dul bàyyi ko mu nuyoo maam ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw li la jaajëfal ñu gis ne démb li nga xamante ne mooy actualité démb ak tey mooy li nga xamante ne mooy libération euh, monsieur xalifa Ababacar Sall. bi nga déggee nouvelle boobu lan la la def. kontaan rek kontaan te rek. kontaan te sant yàlla. xaar bi yàggoon na metti woon na lu ana noo ko doon dundee. ah kanaa jooy rek. jooy ñeenti at yi rek. ak xaar yàlla yóneen lu lu dal nit yàlla la. yàlla moo ko ko teg. suñu waaw ndogal bi daal ci loxo yàlla ak yonente ba laa ko teg ndax boo nekkee di liggéey bul xaddi dara loo gis rekk ci si liggéeyukaay ba rek dafa war a am rek bu am fa ba warul am du fa am man nag maa ngi leen di nii di leen gërëm di leen sant di leen ballu àq te ki nga téye ke yàlla dogal rek mu téye ko waane du yéene bi lu yàlla dogal nag fokk ma bu ko dogal lu du am maa ngi gërëm ma di ko ñaanal ndax doom yëpp a benn la loo wax sa doom bul ko wax sa doomu moroom maa leen di ñaanal yàlla yàlla may leen fa nu gudd wér te àndaa barke sutura teraanga li ngeen bëgg li ngeen yaakaar ak li ngeen sonna li ngeen yal na yàlla seex defal yal yàlla dolli xéewal yal na yàlla mottali yéene xalifa lu mu bëgg moom itam na ko yàlla defal lu mu yóotu yal na ko jot yàlla dolli leen sutura teraanga yéene leen lu baax rek te xam na ni moom moom ki ko téye kat papaam la rek mu jiital ko ci kilifa rek te kilifa moom kilifa la kon nag lanu yéene yal ko yàlla defal yal na nu yàlla sàmm sàmm kër ak àll ku nekk la nga bëgg yal na ko yàlla defal ak jàmm ak salaam mos li yéene doole teraanga doole sutura ak may fanu gudd ak wér jërëjëf jërë ngeen jëf ñu ngi déggoon sa benn sa benn waxtaan Euh, ñu ngi déggoon ci benn waxtaan nga daal koy defoon parce que ba affaire bi amee ci Khalifa Sall ba ñu ko jàppee arrêté ko parce que woon nga ko laaj ko ne ko est-ce que li ñu ndax yow la mun la du man waxtaan ngeen loolu. waaw bu ñu ko téyee. Mhm. dama ko Serigne Babacar. Mhm. si. maa mhm. ngi ko Serigne Babacar mu ne ma si maa ñaata baal mu ne ñett. maa ko lan nga def mu ne yaay defuma dara. maa ngi ko defoo dara mu ne déedéet mu ne ah dañu ma convoqué rek ne xam ma lu ma def man masuma xuloo masuma xeex xalifa fu xuloo am dem na mhm. ni gone du wax ak mag mhm. gone du xuloo mag gone du werante mag day mhm. mag may mag ciir mag may gone ciir waaw loolu laa xam ci moom la loolu na mosu xuloo mosu xeex ah lii nag yàlla bi dikkee ndogalam kenn mën ko daw ah. moom nag mm-hmm. ñaan na ba waxe mu ne sama kilifa la sama kilifa la kenn mënu ko weesu la wax mu ne bëppaleen rek bu kenn wax bëppaleen bëppaleen wax baaxul mm-hmm. moom bañ na ko ba gimiñam gi mm-hmm. koor day woor ba démb ba ngi woor at ba at la koy woor ñaari at yëpp da koy woor wareegul benn yoon kon nag ku may mag kër doo def de ba mhm. waxee mu ne ku bëgg alal mhm. na nga ñaq waa bul yaakaar keneen keneen dëgg kon nag maa ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaan yàlla mhm. yal ko yàlla taxaw yal yàlla taxaw yal leen yàlla sàmm li ngay bëgg li ngay yaakaar yal na ko yàlla def yéen ñëpp sikkal ngeen ko yéene na yàlla sikkal kii na moom jabaru magam la mhm. jabaru magam la naa mhm. ngi ñaanal mhm. yàlla na ba ay gorom rek a sédda kii ndeyab sa ndeyab sa sa jóob maa ngi ñaanal ba si kanamu yàlla maa ngi ñaanal gayal sàmb maa ngi ñaanal ñépp yal yàlla dolli suturaat teraanga xajale musiba balaa. ba mu fa nekkee daan nga daan la fa yóbbu nga koy seeti wala. ah ba mu nga di ko seeti wala. man daa ma ko seeti. Mm-hmm. daa man daan daan naa dem nag ga di seet ji. Mm-hmm. waaye xalifa mosuma ko seeti bu ma nee ma seeti ka ñun ma déedéet. Mm-hmm. ma ne man nañu ma bàyyi ma seeti ka. man ba ma demee gëm naa yàlla. waaw ndaxte am na kilifa yoo xam ne ñaan nañu ba dem. kenn mayu leen yàlla yóbbu leen. dëgg ak seen i mibat ma xool si ñooñu rek mm-hmm. xam ne lu am rek yàlla la mm-hmm. lu yàlla def rek moom noonu la la ah. mais daan na la woo téléphone ngeen di déggante fii waaw daan na fi woote ah ma ne daan na am accès di woote téléphone fii ak yéen ngeen di déggante waaw démb démb démb am si la xalifa ba wax ma wax ndeysaan waaw déggante moom benn yoon Mm-hmm. xanaa ma toog sama canapé bi toog di ko jooy ba sama xol sedd mm-hmm. bu ma xëyee dem si sama buntu kër ga di séenoo di séenoo di séenoo ku dox ma ne Serigne Babacar day day ñëw mm-hmm. Ira moom mënuma kaa fay dëgg la Ira moom yàlla mi am fay yal na yàlla fay yàlla na yàlla taxaw amiin amiin yàlla taxaw yéen ñëpp yàlla doon leen sutura ak teraanga maam ñu gis démb nouvelle bi dafa jub rek si saa si koñ bi yëpp fees dell nit yu jóge fu ne fu ne ñu jóge ñu fa jóge di ñëw xool si eh, seen doom yàlla la am na ñoo xam ne yàlla da leen bindee ay nit am na xam ne yàlla du bindee ay nit danga seet si si danga koy seet si journal yi rek boo demee sa boo liggéey si sa solde daañu la fay fay gi for boo boo daañu la fay fay gi for léegi ñu fay la fay gi tuuti noonu rek la démarré daa mokkal alxuraan mm-hmm. bu ñu ne mokkal nga alxuraan te da mokkaloo alxuraan njuuy nga alxuraan ba mm-hmm. waaw ñu waaw woon naa métti woon na pour ma lool nag waaw métti woon na pour mu am accès pour mu dugg si ci biir kër gi mais jàppale nañ ko ba mu dugg si mais bu mu dugg see ba yegg si si yow yow lan nga yëg noonu sant yàlla mm-hmm. mu yegg si ma sant yàlla ñaan ñaanal ñëpp xam ne ñëpp njaboot lañu loo ñaar sa njaboot ba ñaanal njabootu keneen ñëpp aadama awa lañu mm-hmm. waaw